Senghane Senghor maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. waaw ah. di nuyu sa auditeurs yi. voilà euh, Senghane Senghor nga euh, nekk chargé des affaires juridiques et de la protection ca RADDHO euh, déjà yéen waa F24 da ngeen génne benn communiqué di alerté askan week tamit ñi nga xamante ni war nañ ko yëg situation bi am ci réew mi lan moo ko waral exactement. waaw parce que dañoo jàngat li li xew ci réew mi jamono yi. jàngat aussi fan yi li ñu jóge mais surtout li ñu jëmoon muy procès bi war a ubbi tey ñu gis déjà actes yi ñu commencé woon poser ñu jàpp ne baax na ñu def communiqué pour alerte alerte fàttali nguur gi fàttali acteurs yi justice aussi ne justice dafa am lu ko tax a jóg ak noo xam ne noonu la war a doxee parce que problème yi am tey ci Sénégal yépp lu ci bari loolu moo koy expliquer mooy sénégalais yi dañoo jàpp ne justice bi ni muy doxee du noonu la war a doxee dafa am yëf yi fu muy sooxee am léeg léegi loxo yu ciy dugg yoo xam ne waruñ cee dugg pour di ko jëmale boor bi wala di ko jëmale boor bale te li ci xaw a jara métit lu mooy dafa mel ni ñi yor justice bi di ko doxal di ci liggéey nga xam ñoom seen bopp sax seen image def ci dépendre dafa mel ni loolu du defuñ ko problème parce que euh, santeeruñ ñoom seen bopp jéem-jéem buñ jéem pour soppi loolu te am na solo nag ñu soppi gis-gis bi citoyen yi am ci justice parce que ñun xam nañ gëm nañ ne bari na ñu fa nekk di liggéey seen liggéey normalement waaye bari na it ay rëq-rëq voilà ñu gis ni euh, démb Senghane Senghor ah fitna bi euh, métti woon na ci réew mi université yëngu woon na Ziguinchor naka noonu ak tamit euh, Kër Massar ay bis yu ñu lakk bari na mais aussi Ziguinchor li si gën a doy waar ñetti bakkan ñoo fa daal di rot ci manifestation yi kenn ki policier la ban jàngat nga am si dommage yooyu déjà amagum. waa xanaa rëccu ko. di di jaale aussi ñi ci ñàkk seeni mbokk di rëccu yàqu-yàqu yu bari yi ci am parce que de plus en plus dafay xaw a bari si léegi ñuy seetlu daal yenn yi bu amee rek dafay jur léeg léegi ay yëngu-yëngu ci réew mi yoo xam ne ay bakkan dañ ci wodd ay ñàkk ci seeni bien état bi ci boppam ñu yàqal ko ci yàqu-yàqu yoo xam ne du neex a xayma mais mm. loolu dafa jot ñu xool lan moo koy expliquer dafa jot ñu utal ko saafara dafa jot réew mi ñu xool nu ñuy def ba dal mën cee am parce que bu ñu convoqué benn leader euh, justice parce que convoqué nit justice ku nekk la mën a dal mën na maa dal mën na dal mën na dal beneen citoyen bu nekk convoqué rek mu jur problème yi mu jur yëpp démb mu xaw a jege sax un peu joxe image yi la xewoon mars deux mille vingt et un mais il y a problème pourquoi ñun loolu duñ ci réfléchir mën cee anticiper jël décision nag yi ñu war a jël pour que suba lu mel noonu du amati loolu mooy question de fond bi parce que mënuñ pour benn benn jour rek ñu xëy rek yàqule ci ay ay millions ay peut-être sax ay milliards e mu am sénégalais yoo xam seen liggéeyukaay def ci yàqoo peut-être ñu dem chômage loolu normalul et ñun jàpp nañ ne lu ñu war a waxtaanee la jàpp nañ ne lu ñu war a régler la. Euh, Senghane Senghor euh, malgré tout ak li nga xam ne xew na démb Dakar ak Ziguinchor euh, tey jii dañuy amal procès jëm ci Adji ak Ousmane Sonko ci wàllum viol menace de mort commentaire booy def ci tenue procès bi après euh, deux ans yoo xam ne wala ëpp na ko mu mu tey Sénégal ci côté yu bari. waa d'abord premier commentaire bi mooy def mooy que ñu tenir procès bi lu ñu mën a comprendre la parce que dégg naa sax ñuy wax ne nañu nañ ko arrêté nañ ko dakkal mais bu ma solee sama mbaxane juriste man mm-hmm. xaw ma gisuma ban yoon lañ mën a jaar pour dakkal ko parce que dossier bi jaar na ci juge d'instruction ñu renvoyé ko pour ñu àtte ko man xaw ma nan lañ ko mën a dakkalee lu dul ñu dem ñu àtte leen Adji Sarr nag mhm. sénégalaise la boo xam ne jàpp na ne dafa am ku salfaañe ay àqam dafa am droit saisir tribunal mu ne dama bëgg ñu àtte ñu mhm. bu fekkee def ko def te teguwul ci yoon ka mu tuumaal am na lu ko yoon may kon bi foofu ñu ngi ci cadre état de droit loolu kenn mënu ko ko bañal quelque que soit nag coow leeg problème yi am maintenant nag li nekk ci dossier bi te defe naa mooy expliquer problème yi ci nekk mooy dossier bi ba mu amee nguur gi ak ñi ñu àndal dañ cee dugal seen loxo bi takk ci rëpp parce que dafa mel ni dañoo bëggoon a profité ci situation boobu pour li liquider benn adversaire politique loolu moo en réalité moom moo jur problème yu bari yi ci am te loolu mënoon na ñàkk mënoon na ñàkk parce que buñ ko yemale woon ci problème yi ñaari citoyen yoo xam dañoo jote di dem ci justice yëf yi mën na bañ a yegg xëy na fii mu yegg nii procès bi nag man jàpp naa ne dafa war a teniiru jàpp naa ne aussi teniru na ci délai yi délai yi mooy mars deux mille vingt et un ou février deux mille vingt et un la procédure bi commencé ñu ngi deux mille vingt trois deux ans et quelques ñu ngi koy àtte bari na fi procès criminel yoo xam ne. Mhm. war nañ leen àtte parce que def nañ temps bu ëpp lool te àtte guñ leen àtte guñ leen kon loolu déjà privilège la. procès bi nag li ma ci constaté nga constaté ko keneen constaté ko aussi mooy que mbiri viol bi moom convaincre wul yi loolu moom. Hmm. ku wax sa digganteeg yàlla man li ma dégg Sénégalais yi di wax di ko commenter di ko ci expliquer man xaw ma lan moo fa xewoon fekkeewu ma ko peut-être keneen fekkeewu ko mais mbiri viol bi moom Sénégalais yi taxul ñu gëm ko lool te jàpp naa li tax taxul ñu gëm ko aussi ni dossier bi doxee la ni ci état bi dugalee loxoom la nañu dem ñu layoo ko xëy na buñ ko layoo ba ñu rendre justice ñun danañ ko gën a mën a apprécier Mhm. tey jii Senghane Senghor euh, naka nga gisee posture bi Ousmane Sonko jël Ousmane Sonko fas yéene tout collaborer ak justice sénégalaise mu dëggal ko ci euh, procès Mame Mbaye bi dëggalaat ko aussi tey jii ma nga fële ca Ziguinchor euh, toog alors que procès bi tey la naka nga gisee posture bi nga xam ni jël na ko Ousmane Sonko bañ a teew ci procès boo xamante ni yàgg na ko laaj moom ci boppam. c'est vrai que yàgg na laaj procès bi. Mhm. posture bi mu jël aussi am na ci droit. stra parce que stratégie moom man mën naa ko bañ a commenter jàpp naa ne am na ay avocat yu baax. Mhm. jàpp naa ne moom xëy na gëstu na texte yi avant muy jël posture bi mu jël moo tax foofu mën naa bañ a sori ci ci ci commentaire bi am na it droit. Mhm. mu ne du ma teew. mën na jur nag ay conséquences. jàpp naa ne moom xam na conséquence yi loolu mën a jur. balaa muy wax ne mënuma teew hmm. leneen it buñ il faut ñu wax ko parce que loolu aussi suñ digganteeg yàlla moo tax dinañ ko wax mooy Ousmane Sonko ni ñu teglante procédure yi ci moom aussi hmm. xaw na métti niru na un peu singili hmm. procédure yi Mame Mbaye Niang procédure aji Sarr bi dégg naa yeneen procédure yu ñuy wax ne mu ngi plané ci kawam et que ñu ngi ñëw xëy na loolu mën na tax moom mu gis ne ñii dañ ma singili et puis dañoo bëgg utiliser justice bi pour éliminer ma te bu ko foogee it day doon luñ mën a nangu mën koo dëggal d'ailleurs ci suñ communiqué bi ñu ngi koy wax. Mm-hmm. justice le président Macky Sall utilisé ba écarter Karim parce que Karim dañ ko waroon àtte ak vingt cinq personnes ci benn liste dégg nañ wax yi ci topp yépp même procureur Aliou Ndao sax lim ci wax. Mm-hmm. àtte nañ Karim Wade daan ko am ca lañ bëggoon ñeneen ñi ci def débrouillé nañ ba yóbbuwuñ leen tribunal ñu àtte leen loolu du rafet procès xalifa Sall fi la ñu fekk gis nañ ni mu demee mhm. Khalifa Sall dañoo teg tànk ci accélérateur bi pour àtte ko ci délai yu gaaw yoo xam mosuñ koo àttee ni Sénégal pour génnee ko ci course deux mille dix neuf bi mhm. mais ci mbiram Ousmane Sonko mën nañ ko foog parce que boo jëlee digganteem ak ma mbay Niang délai d'appel yi mooy bi bi mu demee première instance ñu ko condamné ko jusque là mënuñu woon ci wax am na loo xam munuñu ko ci woon wax mais délai yi mu amoon moom pour mën a def appel délai yooyu balaa moo jeex sax fekk na ñu jàpp atte appel bi bi atte ko mais lu ñuy daw et c'est la question qu'on donc loolu bu amee analyse bi bépp analyse bu sérieux da ngay comprendre ne defal leer naññ ne justice lañ bëgg a utiliser pour daan ko nit nag bu nekkee ci condition yooyu ah moom mooy xool ndax dafay bugg di dem tout temps ñu koy daan wala bu fekkee am na moom ay moyens yu mu jaar yoo xam ne mën na ci résister mais loo ci mën ci jàpp mm-hmm. acteurs yi justice bi war nañoo xoolaat seen bopp parce que institution judiciaire bi ñoom ñoo koy doxal jàpp naa ne ba ñuy jàngi droit xëy na xamuñu woon président Macky Sall xamuñu woon keneen ku yor nguur et justice dafa sérieux ci réew parce que moom mooy pilier bi côté boobu moom war nañ cee góorgóorlu lool bébu justice bi daan te sénégalais yi nag fi ñu jëm en tout cas ci dossier yu siiw yi ñuy dégg ak ni muy doxee. Mhm. bari na lool dut yu ñuy teg ci li justice di décider fi mu ne nii te loolu nag du lu baax jëmewut ñu fu baax. peut-être que sax moo expliquer violence yi am. bi am euh, kon Ousmane. parce bu nit ñi amoon conviction ne bu demee justice buñ ko àttee dana leer ñëpp mën nañoo toog xaar àtte bi. Mm-hmm. mais balaa ñoo àtte sax léegi nit ñi dañ la naan àtte bi ñëpp xam ne ci boor bii la jëm. voilà en tant que juriste Senghane Senghor ma lay laaj bu fekkee Ousmane Sonko teewul ci euh, procès bi ñuy amal li ñuy wax euh, jugement par contumace euh, lan mooy risque bi daan yi koy xaar lan la exactement. waaw parce que loi bi moo wax d'abord mu ne bu fekkee ci ñuy àtte accusé bi présenté wuwul wala mënuñoo jot ci moom mën nañ ko acté par contumace acté par contimence mooy dañ lay acté acté boo xam ne yow doo teew mooy dañuy mel ni teew nga ñu acte la mën na nekk dañuy déglu par yeneen parti yi dinañ déglu procureur bi danañ déglu partie civile bi dinañ déglu témoin bi juge bi doxal liggéeyam comme ni mu waroon a doxee bu fekkee yow yaa ngi fi Mm-hmm. dafa bari risque nag pour ki ñu accuser mm-hmm. parce que premier risque bi mooy nekkuloo fa ba mën a défendre sa bopp te procès penal dañuy wax ñu ne yow mi ñuy at yow mi ñu jiiñ yow accusé bi yow yaay défendre sa bopp boo jëlee ay avocat dañ lay assister rek dañ lay dimbale ak di la xelal di la jàppale mais en réalité yow mi mi miñ accusé nga xam yaa fekkee yëf ya dund ko yow yaa mën a wax tribunal bi loo xam ne moom moo lay setal mbaa mu dugal la bu fekkee nag yow mi ñu accusé teewuloo nga xam ne yow en réalité yaay défendre sa bopp teewuloo ñi lay jàppale duñ mën a jël kàddu loolu mooy premier danger bi mm. mooy du fa nekk kenn du ko fa nekkal pour mu mën a défendre boppam mën a setal boppam mm-hmm. deuxième bi mooy cas yiñ ci gis yëpp parce que bi benn boor lay déglu yi ci ëpp dañ lay condamné te dañ lay condamné a une peine boo xam ne dafay diis am na ci yoo xam ne day dem ba vingt ans de réclusion criminelle. vingt ans. ñaar fukki ati kaso. Mhm. te peine boobu aussi mënuñ ko lever mooy buñ ko xasee condamné mënuñ ko lever fekk vingt ñaar fukki at jotut benn deuxièmement nit ki mënatuñ ko bind ci liste électorale bi muy falu. Mhm. mënatul fale mënatul falu ba abadan day am conséquence ci bien yi aussi parce que ay biens am dañ ciy teg loxo. Mm-hmm. am kuñ ko dénk mu koy gérer. leneen day plané ci ko mooy. Mm-hmm. à tout moment mën nañ ko arrêté. à tout moment mën na ñëw mm-hmm. def manifestation meeting wala dem nekk këram sax ñu fekk ko fa teg ko loxo. non non même bu deful manifestation. à tout ça veut dire bu situ bu xoolee situation bi mu favorable mën nañ koo arrêté. alors li mën nañu toog ba fàtte ñu arrêté ko voilà. Mhm. Eh, eh, effectivement. Mhm. c'est c'est c'est ñu gis ne contexte bi maye na ko ñu arrêté ko. li leneen li moom nag possibilité bi mu am mooy bu boobaa boo bu bu fekkee dañ la condamné par contumace. Mhm. contumace boo demee constitué wu prisonnier mën nga demander ñu reprendre acte bi mais da ngay constitué wu prisonnier ba pare. prisonnier da ngay nangoo tëdd ba pare. Euh, non da ngay nangoo dem. ci ci ci ci kaso gi. waaw waaw léegi nag bu boobaa say avocat def démarche yi def li ñu war a def pour que ñu ñu ñu reprendre acte bi. Mm-hmm. donc cas bu compliqué moom la jugement par contumace di di di causé. Mm-hmm. Euh, mais nag jàpp naa ne natt na ay avocat am natt nañ conséquences yi. diggante bi nag aussi yeneen solution mën na fi jaaran ah, yu mel ni am amnistie et ainsi de suite mën na jaar ci diggante bi parce que buñ fàttee ne aussi nous sommes en en en matière politique. Mmh. et on sait aussi justice bi nan lay doxe fii. Mm-hmm. dernière question parce que temps bi bareetul sax mais est-ce que procès bi dina yàgg du yàgg est-ce que tey mën nañ ko renvoyer euh, procédure bi est-ce que mën nañu am procès vingt quatre heures quarante huit heures wala soixante douze heures voilà. non quarante vingt quatre heures quarante huit fooguma ko dana dana dena ko ëpp mais mhm. tey tey tey moom mënuñ ko àtte mhm. parce que chambre criminelle yi ubbi na mën na jël ay fan daal mhm, mën na jël ay fan mën mën na jël ay fan mais dina gën a gaaw na mu waroon a yéexee bu fekkoon ne accusé principal bi mu ngi te ñëw na mook ay avocat Senghane Senghor maa ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj di la remercier bu baax ci sa disponibilité ok merci bu baax di sant merci beaucoup Senghane Senghor euh, mu nekk chargé des affaires juridiques et de la protection ci rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme di RADDHO bokk tamit les forces vives de la nation F24 ñu koy remercier bu baax ñu